waaw sëñ bi ginaaw buma len nuyo yeen wa kewlo di len ziar di nuyu sama mbokk yi nga xamantene ne ñoo fi toog samaay dëkkandoo lañ da ngeen ma bet rek motax mu demee ni fi ma tok ni xana fi ngeen ma fekk ma ngi len di nuyu bu baax wante may nuyu soxna mi Mbacke Dage ak ministre ministre Dame Diop di nuyu suñu président président son excellence le président de la république de tous les sénégalais président Macky Sall. di ko bëggee di wax ne fii nag moom sonnoon nañ trop ndax mën naa ne fii ci ndaamaatu kaat la bokk dafa sori ñiy dimbalee bu ñu ñëwee ci biir dëkk bi la yem te pourtant ñun ci population bi la ñu bokk waaye ñuy sant bu baax Ami Mbàkke moom mi nga xamante ne dañ ne daanu dajul suuf mais moom daanoom dafa daj suuf ndax ñëw na ba fii ci ndaamaatu kaat ci sancaan yi fekk ñu ñu nekk ci situation bu jafe bu metti kenn reconnaître ñu moom moo ñu reconnaître moom moo ñu dimbale seppi ci ñu ci ndox mi ndax sama kër gi juróomi citerne duy nañ ko fi ndax nag da olof Njaay dane kuy raam la bokk bu amee oto dugal la ci te ki la jox añ bu la nee xaar ma ma ñëw maa ngi ñëw jox la reer di ko gëm xam nañ ñu ami Mbàkke lépp luy xaar ci moom dinañ ci jot xanaa kay ñuy eggale rek suñu wax ngeen jotalil ko suñu président Macky Sall xam ne fii ñu nekk ñu ngi daw suñu kemtalaay kàttan ndax nu mu amee ndam ndamam mooy suñu ndam kon ndamu amee Mbacké Daaz tamit mooy ndamam président ministre portefeuille lañ bëgg mu nomee ko ami Mbacké Daaz ndax tuubaa bari na ay jafe-jafe bari na ay gàllankoor ñi am ñooy dimbali ñi am ñi amul gën di sonn kon ami Mbacké kon ko yàlla baaxe na ko xelam dem ci ñi amul te nag fi Amy Mbacké teg tànkam foofu la de ndax électeurs yi ñi ngi ci koñ yi duñu génn tele xamuñu luy télé xamuñuy réseaux sociaux xamuñu politique politique ñu ñu ngi toog xam nga lan lañu xaar élection jot ñu xool ki leen doon dimbale kan la leen sant ne leen voté leen ko ñu dem voté ko daas rek doyul ci ami Mbacké na ko président def ministre de la jeunesse mën na ko jeune la am na diplôme bi compétent na Touba jox nañ ko bopp lépp lu ko naqari ci département bi bu yokkee ndomba tànk ami Mbacké Daje li ko naqari woon lépp dina ko saafara ndax nag Daje rek ci la ne te mi ngi dimbale doomu aadama yi mën naa ne màggalu Touba daaw la dëkk bi ñàkkoon ndox du ñëpp de ndax ci rajo télé laay waxee ñëpp ñàkk ñu ndox waaye ñi ñàkk ndox ñoo ëpp ñu am ndox te mën naa ne citerne bi ba mu fi nekkee ba léegi li mat 20 jours bu ñu jëlee tey di jóg di voté ji di rang naan dañuy voté li kenn ami Mbacké la ndax bu du woon moom suñu taatu garab gi duñ ko duñ ko jógee ndax sonn nañ fi damm nañ dee nañ te kenn gi ñëw fi dimbale ñu mel na moom moo ñu reconnaître boole ñu ci ci ci ci doomu aadama yi ngaccal ñu am ndox dimbale ñu ami Mbacké ngi ci ceeb bi mi ngi ci diwlin ji mi ngi saabu yi lépp luy dimbali doomu aadama Amy Mbacké da koy jël di ñu ko defal utal ñu ay formation ah man man de sama inondation bii may lab sama néegi fees de la ma cëpp samay tànk sëpp ko ci ndox sama bagage yëpp yàqu ku ma fi te ñëpp xam ma ci département bi Ndeye Diop Marière may liggéey président lu amul fenn bu liggéey jotee ma jël sama bakkan bi teg ko ci ci ci ci àll bi ndax moom ku ma fi fekk rek gisuma la xaw ma la man de moo gaaw ci man ci lépp te nit ñaa ngi ni mën nañ ma seere xam nga xam nga xam nga li tax euh, liggéey ñu dara Touba Amy Mbacké fi néew Amy Mbacké moo fi néew moo fi néew doole gisuma inondation bi de gisuma leen ci ci inondation bi yaakaar naa nag Touba li fi gàllankoor lenn dong la muy inondation ak manqué ndox ndox mu ni ñi naan fii ba ma fi nekkee ba tey bëri na mu jot inondation am an mu jot ami Mbàkke daas laay gis an mu jot moom laay gis waa sëñ Cheikh Gaynde Fatma kooku suñu ministre conseil la daf ciy jàpp lek léeg wante dama yaakaar ne dafa génn nekk fi ndax inondation yi gisuma ko ci dégguma ko ci woo naa ko jotuma ko man day jom marier woo naa sëñ Cheikh Abdou Bali jotuma ko mooy suñu ministre conseil sama vidéo yi filmé naa ko dugal naa ko ci panelam jox naa ko ku ko jege damaa yaakaar ne nag dafa dafay nekkul moo tax waaye man de wax dëgg yàlla ami Mbacké Daas laa gis ami Mbacké mooy élément bu baax bi fii ci commune bu Touba département de Mbacké Amy Mbacké Daas mooy élément bu baax bi na ko leer ne lu mu fi am rek ba di ko tiitaroo bu yokkee ba tànk ami Mbacké Daas dina am lu ko raw ndax mboolem lu mu jox ami Mbacké rek Amy Mbacké delloo na ko askan wi xam nga ne jamono yi xam nga ne nekkuñu jamonoy politique. ñam jamono yi jamono yi social la ñu ne dimbalante xam nga Amy Mbacké rek kenn nommewu ko ci département bi ma tànk de te pourtant moo wàcc ci terrain bi pourtant moom la ñu gis ami Mbacké tëjul téléphone soo ko woowee di nga ko jot soo ko jotul xamal ne dafa nekk service saa bu amee jot dina la woo wala boo ko messager mu tontu la man ginaaru kenn leen ma gis nga Amy Mbacké bu lii ma koy waxal ni su ko defuloon barki Serigne Sall ma ko ko waxal ndax ku dee yàgg sa bàmmeel te saa bu ma toogee woo ko jotuma ko wala ma sant ko dara ci askan wi man bu dul man sax di askan wi bu dul man di askan wi ndax man li may bo lii tuuti tuuti am naa ay connaissance am na ñoo xamante ne nii bu leen seenum responsable yónnee seenum leader yónnee ci seenum responsable ne ko demal dimbale leen wala demal joxal ma leen daal di may woo ne ma jox boole naa la ak diw au lieu que ñu ñëw duñ ko def dañuy toog ba yow nga yàkkam di leen woo ñu naan la lii yegg di la ci tegal ay conditions di la ñoom doxewuñu noonu sama kaddu gu mujj mooy président encore une fois ministre Dame diob encore une fois ami Mbacké Dage nañ ko jàppale ministre de la jeunesse mën na koo nekk na wala mu def ko ministre portefeuille na yokk ay ndomba tànkam na yokk ay ndomba tànkam ndax foo koo koo de joxul dara daas rek la muy jël alalam li ko yàlla may ak li ko li borom këram am mu am ko di ko def ci askan wi kooku buñ ko do do dolli leen ndomba tànkam yeneen affaire la te ci dëkk bi la dëkk dëkku maamam la li ma ko wax rek li nga def da nga koo war a def ndax dëkk bi sa dëkku la